mbokk julit yi daarul xuraan ca Touba Daaru Marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara ju ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngoog jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe maam awolo ca daaru Ndangaan ci njiital Serigne Makhtar Diène am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'étude BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Maam Awa Lo ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppee Daaru Alimu Kabir bloc B bi Njéene Lagan bloc bi Touba Xelkom ak complexe njiital sëriñ Maktaax Jéen njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo ak ñoom mbind mi tàmbali na weeru août ubbiteeg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 82. nga xam ne ci moom la bàyyeeku léegi. fekk fa itam sa mag ju tedd ci Serigne El Hadj Malick Sy Dabakh di wax nga mot jottalil ma nuyoo yi ak ziara bi mbooleem njabootu suñu maam Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu bi waral bés bi ñu màggal muy guddi jum eh, juddu sang bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa te moom maam Sidaaj Malick am lu réere lu ci def danaa si ñëwaat léegi may nuyu sa rakk yi fi teew ak njaboot gi di sant bu ma toogee ci bërëb bii sama xel dana dem suñu papa El Hadj Abdoul Aziz Al Amine yal na yàlla yokk leeram di sant njabootam ci turu sëñ Babacar Sy ak sëñ Moustapha ak seen rakk Cheikh Tidiane di nuyu autorités religieuses coutumières politiques di nuyu mairu dëkk bi ak présidente conseil départemental di nuyu l'ensemble des maires du département de Tivaouane ak mbooleem député yi au conseiller conseil économique mbooleem kilifa yi fi teew ak muxaddam yi ak taalibe yi di nuyu waa Koskas di nuyu waa Tivaouane yëpp ah yaakaar naa ni waxtaan bi lu bare def nañ ko ci sànq ci kanamu xalif bi waaye nag comme dañu nekk ci di waajal gàmmu te ren mu mel ni seen thème bi ngeen jël moo doon sur le chemin droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous orientons les générations maanaam ci yoonu siratal mustaqim yoon bi nga xam ni sang bu tedd bi moom la wone ngeen fas yéene teg ci ndaw ñi ak ñi nga xam ne ëllëg bëgg ngeen leen teg ci yoonu lislaam di yoonu siraatal mustaqim te loolu suñ ko defee fii ci Tiwaawan def nañ lu war ndax Seydi Hadji Malick Sy la taala anhu daf fi liggéey jàngale fi former fi ay muqaddam mu ngi si njarnde ci jagsaaw ci Tiwaawan tasaare leen ci biir senegal yëpp ngir ñu wone li nga xam ne mooy lislaam ak li sunu borom santaane loolu nag dafa am ñu ko wax ñu dul man mii di ay boroomu xam-xam ci lislaam bokk na ci témoignage u Cheikh Ahmed Soukheyri di borom xam-xam bu mag bu nekk ci Fès ci réew Maroc a nekk itam borom xam-xam bu mag ci yoonu Tijaniya ci benn téereem bu ñu tudd Jinnaaya wax na ci moom Cheikh Ahmed Soukhayri que mën nañu jàpp ne si ñu gën a liggéeyal lislaam rawatina yoonu Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mën nañ si site góor gu mag gu baax goo xam ne ci Sénégal mu ngi tudd Sidi Hadj Malick Sy ibn sëñ Ousmane si nee na leeral na réewam ci leeraayu lislaam jàngale na jàngale na te moom bokk na si ñi ñuy tuddee Kumaawal Richard muy nitu yàlla yi yu tedd yi ñu nga xam ne yàlla am na lu mu leen may ci xam-xam am lu mu leen may ci ay mayam ah dundam yépp daf ko def si di jàngale éducation ci di former jàngal nañu bare bare formé na ñu bare ci topp yàlla ak bëgg suñu borom ñooñu bi mu paree daf leen tasaare muy muqaddam yi loolu kooku ma leen wax muy Cheikh Ahmed Soukhayri moom moo bind loolu si Sudage Malick Sy lu yàggul ci am na revue maanaam muy téere yooyu ñuy bind léeg-léeg ci université yi ci université Al ci Caire revue des étudiants de Lazare def nañu benn présentation ci Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci jëfam ak liggéeyam lañ ci wax mooy grâce à lui l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal en créant des écoles coraniques des mosquées et des zawiyas kon loolu dafa nekk loo xam ne ay témoignage la kon bu ñu ñëwee ci bés bi ginnaaw waxtaan waxtaanu suñu biir réew war nañu tam di def témoignage ndax nit da fonk li nga am Sénégal dafa am lu fi yàlla def ci lislaam bi muy góor ñu baax ñi ñu booleel suñu maam yi nga xam ne ñoo teeru lislaam tatagal ko daldi ko dugal nag ci biir Sénégal ci suuxu réew mi loolu dañ ko war a magnifier dañ ko war di wax di ko waxtaane lu am solo la suñu différence souvent ak tubaab yi bu ñu amee lu tuuti ñoom dañ koy fonk lu tuuti loolu dañ koy dañ koy kañ buñ lay jox lekk sax dañuy tagg lekk bi même bu dee ab ganaar la dinañ la ne ganaar gii fi mu tànne ay pepp ci bërëb bu mel nii la ak bërëb bu mel naa lépp rek pour magnifier li nga xam ne ñoom loolu lañu am waaye ñun lépp lu ñu am bu dee jamaa sax ñu bokk ko def përëm duñu fonk suñu bopp duñu fonk li ñu am loolu nag du lu gën ci askan moo tax ma def témoignage bi tey ci bés bu màgg bi di bési gàmmu nabi sallallahu alayhi wa pour wone vraiment war nañu am mbégte ci lii ñu fi indi mooy di màggal guddi juddu sang bu tedd sëriñ bi nag fàttali naa suñu jaar-jaar suma diggante ak moom moom sëñ Ababacar yal na yàlla yokk ay fanam may ko yokk ko wér ak kattan sumb yi mu def mu mottali ko euh, sant naa ko bu baax gërëm naa ko bu baax sant naa leen it bu baax ndax li ngeen ma téye te it seede bi sëriñ Maodo def sànq su du loon mbëggeelu xol du ko def parce que maa ngi dem kon ki lay feddali cofeelam ak mbëggeelam ci ba ngay tàggatoo kooku jàpp mën nga jàpp ne ku la bëgg la te ba mu koy wax boobu sore naa fonction yi ni loolu nag dafa am solo ndax àdduna teraanga ak cofeel daf ci am solo kon sëñ bi maa ngi lay nuyu di la wax nga jottali waat ñu suñu nuyoo si nu mu gën a rafetee ci xalif bi xamal ko ne bëgg nañu ci moom bëgg nañu ci Tiwaawan bëgg nañu ci njaboot gi yépp maa ngi nuyu sama benn papa bu ma gis fii sëñ euh, Mody njaay Abdou Mody sëñ Abdou Mody di ko ziar di ziar ñi fi nekk ñëpp di ziar nag ak di gërëm samay responsable politique yu département bu Tivaouane ndax Tivaouane tam dafay xolu Sénégal di xolu Kajoor moo tax lépp lu ñu fi def lu jaadu la ndax dafay ubbi Kajoor jëm Bawol ci wàll wële ubbi Kajoor jëm njàmbu jëm Fuuta jëm Cap-Vert kon désenclavement département bu Tivaouane autoroute bi ñu fi indi muy ñaareel bi daanaka bi jógee Ndakaaru Tivaouane jëm Ndar li ñu fi def ci ay yoon ba ci yoonu mexe jëm cilmaxa mbaaxul ak yeneen ak yeneen bëri na du ma si ñëwaat ci ay programme ah, dafa nekk lu jaadu ndax dëkk bi moo ko solo am naa yaakaar nag ñii ma fi bàyyi te ñu leen di ñaanal yàlla jàppale leen ngeen jàppale leen itam duwaaw bi moom am na solo ñaan yi am na solo waaye itam fagaru nag ba su woote jóg dem lu mu xat-xat dugal urne bi dugal bulletin bi am na ci solo ne ko suñ papa ju baax ji doon defee sëñ Abdou Aziz Al Amine joxe donner exemple donner sa contribution te mënoon na ko si bañ a fekk kon organiser wu jàppale du jàppale ñu ma fi bàyyi de du jàppale ma rek waaye jàppale réew mi la jàppale Sénégal réew mi dafa war a nekk ci dal dafa war a nekk ci jàmm dafa war a nekk ci naataange itam yàlla def na am na dañuy xaar doon ko wut bu yàgg ba tey loolu bu ñëwee yal na ko Sénégal muurloo mu nekk njëriñu askan bi donc loolu laa bëggoon ci bésu tey bi euh, ne leen daal kontaan naa trop ci sama diggante ak yéen ci at yi yëpp yàlla teg ma ci bopp réew mi kon nag sëñ bi jërëjëfati euh, santal ma xalif bi santal ma njaboot gi yëpp santal ma itam suñu mbokk taalibe yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam euh, yéena dégg kàddu yooyu jóge ci le gardien de la